animation bi reine mobilisation bi ëpp na dayo li muy wone rek mooy que ni Yewwi Askan Wi mooy réew mi dañu jógee siège u Fall di dox nànk ba egsi fii c'est toute la population de Dakar qui nous a accompagnés de la VDN au Parti Assainies soxlawuñu woon di Diwa, wala di joxe t-shirt wala di joxe paas li ñu askan wi woon mooy yeewi askan wi et ça c'est important